voilà comme coton. waaw sénégalais yi mën nañu def confiance. mais est-ce que nag est-ce que loolu mën na nekk est-ce que c'est possible vraiment. ah mais mais normalement tey déjà non non normalement tey quoi qu'on puisse dire man je vais te donner un exemple bi nga xam ne gis naa ko mu ngi am mairie mairie de Dakar ñi fa nekk ñëpp kenn amul jàmm. parce que leen teg pression da leen di xool chaque jour. ma ne la maire ba mayu leen jàmm képp koo xamante ne fépp foo xamante ne xaalis mu ngi ko fay dugg fay génn bala ngeen xis xab nga gis contrôle loolu ñëw ñu ngi wax des des des des des des des des auditeurs ñëw xool. nga génne kayitu leer lañ maanaam xaalis amul dugal fu fu louche xaalis bi day jaar fu mu war a jaar dem fi mu war a dem parce que moom maire bi su paree dañ koy auditer il le il le sait très bien. bien a defee service tey suba audit auditeurs ah. bien sûr parce que il hmm. président Macky Sall bi mu togg loolu la ñu def audit mais boo xamante la mu génne lan la ba léegi kenn xamul. moom moom man man président moom moo la gën a xam ne mu toog fii mu ñàkk fee toog kii ñëw ci gannaaw dinañ audité mhm. parce que déjà waa <laughs> nee nañ doo doo doo doo baa ngi jàll ne su nekkee fii nii di commentaire mbir mi. si la. <laughs> non pas li may wax te du nekk loo xam ne non li ma wax loo xam du man xam ne li nga koy inventé li ma wax lépp ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi fii nii. wax dëgg yàlla. donc euh, dañuy jàll ci beneen yéen kay ah Sud Quotidien moom dafa ne l'APR face à elle-même c'est c'est à peu près ce que a dit euh, beneen yéen kay bi nga xamante ne moo di sur sur euh, Sud Quotidien moom dafa ne présidentielle de 2024 entre supposée alliance et entre une unité superposée une unité près pré pré euh, présupposé et alliance contre nature l'APR face à elle-même ñi nga xam ne ñoo nga ñoom nga gis noonu ci affiche bi bokk na ci président Macky Sall Aly Ngouille Ndiaye Abdoulaye jàlloo Diallo Abdoulaye Diouf Sarr ak Amadou Ba ñi ñoom ñi ñëpp nag APR la ñu bokk mm-hmm. waaye nag ñenn ñi dañuy ànd ñeen ñi ne ñu ànd. parce que mais mais fii ñenn ñi fippu est-ce que <laughs> maanaam fii nii mën na si génnee maanaam kii di Aly Ngouille Ndiaye mën nañu wax ni peut-être bën a bokk yaakaar la bokk mais bokkul APR. moom non maanaam moom moom kañ ñi ñuy wax mooy euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom ñoo nar a def alliance. voilà maanaam def nañ alliance maanaam les les les les deux réfractaires mm. de la décision du président Macky Sall mooy euh, ah, euh, euh, El Hadj Mamadou Diaw ak Aliou Ndiaye jamono ji nag je sais pas ndax mën nañu def alliance ou pas mais ah, Abdoulaye Daouda Diallo moom def day dem ranger wu ci ginnaaw président Macky Sall comme il l'a si bien dit mais. Euh, mook Diouf Sarr <laughs> parce que parce que vraiment man man man li man jaaxal ci bennoon vraiment pour man seen coalition war nañ changer bi quoi bennoon nag vraiment je pense pas que c'est le c'est c'est le bon euh, c'est le bon nom actuellement pour euh, pour mais mais est-ce que est euh, peut-être am na am na quelque chose de de, négatif mais est-ce que tamit amul quelque quelque part quelque chose qui est positif. ma ne la de ce gis nga ànd gis nga ànd gis nga ànd. su may waxee mooy si wàllu communication de ce fait si wàllu communication. Mhm. fu mu toll nii bennoo rek ngay dégg ça veut dire que déggatoo Yewwi déggatoo euh, maanaam Pastef. xam nga xam nga xam nga tey loolu mën na jouer quelque part. xam nga tey quoi qu'on puisse dire bennoo am na électorat. Mhm. loolu lañ koy nangu mais électorat bi fa la féetee. APR la féete wala ci yeneen parti alliés yi am na am nañ ci am nañ ci seen wàll loolu c'est question deuxième chose bi mooy hmm. sénégalais ñoo a xam suur ci bennoo bi mu fi nekkee roi des arènes pendant quinze ans sénégalais ñoo suur ci moom defu leen dara de pourtant mais ndam ma am dafa bari maanaam nañu sénégalais moo mel noonu soo mënee li ngay def day day doyal ci yow ak loo baax baax baax dañuy hmm. doyal ci yow léegi nag soo demee ci lañ commencé rëccu hmm. maanaam benn bi man su ma leen conseillé mooy nañ changé tur bi déjà suñu bëggee sénégalais comme commencé leen def confiance nañ changé tur bi déjà te ñoom seen seen ñàkk juboo gi ñu nekkee ñu juboo parce que nit mënoo bëgg ndam doo juboo du ci am ça c'est impossible quand même

ce qui se passe dans dans dans pouvoir mais c'est qui se passe dans l'opposition mais au moins man benn côté Yewwi ñoom fu ñu farawee mooy. ñun suñu coalition bi du coalition ay nañu ànd nena nii nena naa coalition électorale la. daggan baatu askan wi moo ñu tax a jóg. Mhm. mais nag d'une part dañoo dóor population sénégalaise. dañ leen a jàll bu amul fenn ba gaay commencé am yaakaar. mais ba gaay am militant yu bari bëgg def Yewwi coalition bu mu ngi nii ku ci nekk jël na yoonu ñaay ba ku ci nekk wutali na wutali wutali wutali nga sa yoonu bopp ñeneen ñu ñoo ngi saagante ka tamante tamante dëmm te pourtant barki de moo ñaan ñu doon wax sama doomu ndey ak sama doomu mhm. na ku mën a ndax yàpp gay naa laa ndekke yi ndékku ndékk ndékki sax ah, euh, Ba am na ko yéene bi nag euh, da bind lu lu doy waar daf ne l'APR comme Ba Amadou la paire combat Amadou. tu peux lire combat. ouais combat tu peux lire combat. tu peux lire comme ba comme ba xam nga ah. sama man nag sama sama naataangoo yi nag. c'est dans ce titre. ak ak ñoo mën jeu de mots parce tey. xam nga xam nga sooy quand tu entre les lignes tu vois comme ba. comme comme. communication. waaw mun na comme ressemble à Amadou Ba ressemble à. nan la mel ni. Amadou Ba mel ànd nañ ak Amadou Ba Amadou Ba mu ne nag aussi kay day xeex Amadou Ba. donc le quotidien ci mbir moomu la ñu eh, xëyee ba nga siy choisir ah man de xam naa ne ni ma ko gis comme ba comme wala comme man ne ni ñu ko bindee noonu laa liiree falaa mën a yem nag ñu ne tous les const <laughs> ñu ne toutes les contestations viennent de son propre parti mm-hmm. te li li gën a doy waar mooy yéen kaay bi dafa def taxaw seetlu bu doy waar maanaam dañoo nekk ci ab coalition bu tudd benn bokk yaakaar mouvement yeeg parti politique yi bëri lool macha allah ñu ne candidat yëpp yi déclaré wu APR lañ bokk. waaw parti bu président Macky Sall. Mhm. ñu ne ginnaaw tànneef li. Mhm. alliés yi maanaam ñoom AFP PS. PS les euh, les autres partis PIT genre bëri nañ. AFP ñoom ñëpp rangé wu nañ kenn waxul mais ci biir benn ci biir APR ci boppam la fi la fi puy am. waaw donc quel est le problème c'est soit c'est Amadou Ba wala. c'est les autres en tout cas kaay bi taxaw seetlu boobu la la jot a def waaye itam am na d' accord loolu dinañ ci dinañ ci ñëwaat ci beneen yéenekaay mhm. mais le na parti APR muy euh, ne moo nekkoon ministre am di Amadou Ba moom nag jàppal a tànn Amadou Ba 2024 a di euh, defal ki nga xamante moo di président Macky Sall bi itam ñu mu ci ñu ne Abdoulaye Diallo moom mi nga xamante ne moom itam euh, daal dinay rangé wu ci ginnaaw président Macky Sall waaye nag lii la nag taxul ba moom daanaka mu xaru. Mhm. daanaka mbëbët yi ma amoon ci suuf. ba léegi moom moom li nag nga xamante ne moom mooy Abdoulaye euh, Daouda Diallo euh, ba léegi bàyyi ko euh, ñu ñu ñu jeexalee ci mbirum Le Témoin ak mbir mu doy waar vraiment mu nekk vraiment une histoire assez triste am fii nii non loin ci fi nga xamante ne moo di jëppal Derklé ndax foofu noonu vraiment benn drame familial moo fa daal di am benn bonbon de gaz moo explosé woon ba tax onze membre d'une même famille am ci ay bless am ci ay blessures yu yu métti métti malheureusement am na ci ñaar ñoo xamante ne la mère et son fils malheureusement ils am amee fi nga xamante ne moo di jëppal euh, Derklé ñu fay jaaree itam di masawo njaboot googu yëpp ah, di ñaanal ñi nga xamante ne ñoom ñoo génn àdduna yàlla mën leen a xaale àjjana ya ya gën a kawe bés plaisir yéen kaay moom dafa ñëw ci mbiri